et occasion bi ñuy dund nga xamni kenn nekkatul ci jamm xelu kenn dalul li ñu war moy ñu jog nag défendre suñu réew défendre suñu démocratie parce que démocratie bi mo nekk en danger li nga xamni moy mooy la ñuy dox ñu diko dund depuis ay fani fan fan ñepp dañ ñu won affaire privée la mais ñepp d'accord nañ ni amouli privé parce que li privé su fait lu ni mel la bis bu jot nit ñi dem tribunal gis ñu fay ñu diko fa at donc don privé su war aw du mais li ko gën Fabrice weekend bi kenn ci ñun mënul jot ci ci télé journal écrit ak parlé. waaw forox. waaw mais c'est-à-dire suñ lay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

waaw dafa am date 23 mars. finalement 23 mars. 3 mars 3 mars autant pour moi finalement 3 mars lii dafa. xëy ko digal c'est mystique ou c'est mythique en tout cas le 3 mars moom léegi mi ngi bëgg xew yàlla bu mu 3 mars ba pare dem 7 mars. <laughs> dégg nga de bu 3 mars rek yeexee 3 7 mars en tout cas liñ ko taamoo daal ñoom ñoo xam ñu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 Mais nous mettre en garde les magistrats. Nous en avions, nous avions de très bons, d'excellents magistrats dans ce pays. Et bien, nous en avons. Mais nous avons gens que nous avons dit nous avons gens qui nous avons dit que nous la institution moo Nous ñenn ñi su leen nous parce que yaakaar nañ ni lolu nous ont mais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

sama dox sama wax sama xey sama xalaat sama lepp moy opposition bi dajalo nañu dajalo don ben don say xeex sinon dañ lay rotte ropat ben par ben ben par ben ba dootuñu doon dara suñu doole moy suñu and suñu doole moy suñu jubo suñu doole moy suñu xexando yeukentendo dorundo résister il faut résister il faut résister il faut résister